Euh, ñun ay doomi bokk jom la ñu doon ko wax euh, Daaru Rahman waaye comme tur moo gën a siiw euh, ñu juddoo fi yaroo fi màggoo fi nag màggee fi tukki ñu dem ba ci jëmi jamono ñu ne comme ñun fi lan bàyyeekoo li nga xam ne yàlla mi ngi ñu ciy xeewale di ñu ko wërsëgalee nañ ci comp assi assi asi tuut di ko dajale Euh, bu demee ba mën a mat dara nag euh, ñu jéem a xool ñi nga xam ne ñoo dëkk ci koñ bi te yittewoo ko ñu leen ci dimbale. Euh, defoon nañ ko daaw ba joto maanaam teg loxo wala dimbale fukki fukki fukki borom kër ak juróom yàlla dimbale ñu waar leen nag ñu dool dàbbaliwaat ko ba jot nañoo jox fanweeri borom kër ak ak ak ñaar soo ko seetloo pratiquement euh, famille bu nekk jox nañ leen euh, lu tollook 38 euh, mille cent cinquante mille 38 mille cent 350 francs CFA ci xaalis ah boo ko xayma war na mën a toll ci yi borom kër yi 1 million 225 mille 200 francs ku nekk jot na saakoob ceeb juróomi litre yi diwlin Euh, fukki kilo yi suukar ak euh, ñaari ñaari kilo yi ñaari kilo meew ndax liggéey bii nga xam ne doon nañ ko def euh, suñu suñu suñu rakk Mor Diaw jiite ko moom it wax dëgg yàlla am dugal na ci loxoom ba liggéey bi nga xam ne def nañ ko mu mucc ayib et ñu am ci succès bi nga xam ne nga xam ne def nañ ko muy muy muy Jolof Foundation